jërëjëf jëf mbokku internet yu bi pro média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di amati mbégteeg kontaante jàkkaarloo ak yéen mbokk yi nag tey dellusiwaat nañu Pikine ci suñu suñu suñu kër xarit suñu waay hmm? di ànd ak moom ci mbégte ak ci bànneex ndax dund ba suñu borom may la tuut tànk nga di ko wutal tur loolu sant yàlla la ndax am na ñu ko yàlla mayul kon ku ko yàlla may nga di ko tuddal loolu sant la ñu ngi naan nag mu dund dund lool ba fekkee njariñ wa ay way juróom yëpp fekk seen njariñ ci barki Serigne Touba xaali mbay dogo ngeen xam ko ndaanaan boobu faramaaren boobu di suñu waay di suñu mbokk taalibe moo tax bëgg nan gan gi mu am daal yàlla na fi doxi xéewal yëpp gën a yaatu xaali mon ami ñu ngi lay nuyu di la di la ziar di la ndokkale mais waaw mais ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay di la bëggee di doon la ziar bu baax dem contentement nag ci ci sa teewaay bu baax a baax ni ma ko waxee rek euh, yàlla may la tuut tànk euh, ngay sant yàlla ndax sant yàlla mënta weesu euh, yàlla may la lii nga di ko wutal tur gis nga ñi fi daje ñëpp mbokk yeek xarit yi ñëpp. non sant yàlla bu wér parce que doom moom bu la ko yàlla mayee rek ak cant la nit yoon na lu dul jeexte suñu borom joxu ko doom kon yow mi ko yàlla jox loo ci am rek teral ko ba pare mu doon cant gu rëy nag goo xam ni amul ab boo gisee tax sax tey ji ñu tudd ko mu yem nii dañoo am dëj bu metti dëj bu diis maam Matar. maam Matar bu alaaji booy naar maam Matar di sama mag. Oh. maa ngi moom nañ ay turne yu bari ci lay ananaas moo si nekk nit ku baax. nit ku yaru. mag mu mag mu am diine. moo waral sax tey. bëgguma ko fi tëgg bëgguma ko fi taasu bëgguma ko fi woy ndax li ñu ñàkk dafa foor moo tax sax ñu simple ko def ko mu simple ñu ngi koy jaale ah ndax ñun keroog bi muy am fala ñu fekk asalem ca ca ca gàmmu ga mhm. waaw waaw waaw loolu dëj boobu moom lu metti la mais yàlla nag bu soxlaa jaam ñàkk dañ koy ñaane yàlla fee mu tëdd rek ndax fi mu wàcce nag foofoo baax nag euh, teel a dem moom kenn bëggu ko waaye wàcce na wàcce na fu jàmbaare mhm. baayam alaaji booy naar bàyyi na ko yëf yi xalifa gi mhm. téye na ko ba ni mu ko wër a téye ba ni mu fekk jee baayam te yàqu ci dara kon di ñaan ci yàlla seex na seex Sadbu bi nga xam ne moom la gëm yaakaar ko bëgg ko liggéeyal ko ba ci bisu Seydina Muhammad ci tànt bu rasulillahi fa la wàccee liggéey ah Mamatar de limam rëy na. rëy na de barke Seydina Muhammad yow deewoo ci fenn yow lu dul ci guddug rasulillahi nga ne ba lii am. nga nga génne fa àdduna ah maam Matar de li mu am moom rëy na ah dëgg la yàlla na ko yàlla yërëm nag man muy sama mag nag doonoon sama xarit ànd nañ tourné man moom ñaar ñetti yoon ci laay ananas barke Serigne Bamba ànd nañ tourné ñetti yoon ànd nañ Belgique ànd nañ Hollande ànd nañ Italie waaw sama mag la sama xarit la yàlla na ko yàlla na ko yàlla yërëm ñu del si waat rek ci lii nga xew le gis nga sa mbokk yi xarit yi tudd mi gis na ni mu mel ñëpp teew waaw tudd mi moom euh, Pikine gën na gën nañ maa ñaax. du ma wax sax damay jiital pikin nag. parce que nag fi laa yeewoo fi laa dëkk fi laa amee lépp. waaye gën nañ maa ñaax waaye àdduna gën nañ maa ñaax tey kilifa yi wàcc fii kilifa yi nekk fii yi ñëw fii ci man ci sama jëmm bu xeebu bii ñooñu man tey tey laa gën a xam sama bopp waaye loolu lépp bu amee diw buñ la ragalee. Hmm. walla ñu lay am kun lay sóoraale. daa am ku tax. ah waaw. diw. waaw buñ la ragalee. Hmm. wala ñu lay sóoraale. Hmm. daa am ku tax. maa la wax lii de. ku tax waali. tudd mi xam nga ni tamit <laughs> yor ay millions ta taxul ndaanaa ni euh, euh, kilifa yi ñëw fii wax dëgg yàlla ak yonent bi. ndeysaan waaw waaw. nga tudd ko waali sa diggante ak moom. doo wax ci moom ñaari baat waaye tey moom di nga wax. tudd mi bi mu ñëwee gise ngeen leer na ma ne moom kenn du wax ne li ko fi war def na ko. Mhm. mais sa diggante ak moom waali Seck bu nee xaali mbay bu nee xaali jooy lu xew. parce que nit booy ànd ak moom di liggéey da lay yërëm. ndeysaan te def ñoo yërëm. xam nga fi mu toll nii ñun dépassé nañu fu ñuy waxalee lenn waali te te amul loolu xam nga yaa ngi nax sa bopp. di wax loo xam ne li nga wax ne dara amu ci xam yaa ngi nax sa bopp barke Seydina Muhammad lu ñu waxal waali moo ko def waaw luñ ko waxal Binta. aywa gis ngeen ko de xam ngeen xaali moom daa neex da koy jël interview <laughs> muy wax téléphone waaye madama koy woo pour ñu jël si ko ah. lu luñ ko waxal. Uh-huh. barki sëñ Bamba moo ko def. ndax tey xoolal tournée yi ñuy def maag waali bi ñu waree ba léegi koor gi paase. ba léegi liñ toog Sénégal matul quatre fois ci bi ñu waree ba léegi. li ma fay man naa cee tuddal fukki doom ak juróom-ñett wax dëgg yàlla li ma fay xoole fi mu dem xoole fi dem yëpp. ba samedi bi laa ñëw ñu jugee États-Unis ah. tey la mercredi kon xam nga ni ma mën naa tuddal fukki doom ak juróom-ñett nga nekk ak sa euh, musicien mm-hmm. ngay ngeen ànd tournée. Mm-hmm. amuloo ko benn àq mu mu fay la lim la waral fay lépp ba mat. Mm-hmm. ngeen ñibbisi barki démboo Njaay nga dem këram yéen ñaar ngeen toog ngeen añ maafe ba pare mu yëkkati un million jox ko ki def rasta yi Moustapha mu jox ko Moustapha ni ko buy xaal di wàcc jox ko ko nekkoon na ci jënd xar un million lay lay jënd xar. xaar na jënd ay xar kon. ah <laughs> dëgg la ñu waxante dëgg na wax ni. parce que Serigne Bamba. Moustapha la ko jox Moustapha la jox ne ko xaale ngi ci biir studio bi buy dem nag moo ko joxal un million yi. Oh. nekkoon na ci jënd xar. un million laa jëndam xar mais tamit xam nga yu baax yooyu euh, wax ko aayul baa doolu du gërëm ku dof du gërëm ku iñaan du gërëm nit nag bu ñu la defalee loo mënta defal sa bopp wax ko jërëjëf teraanga cul kenn tollatuñu fu ñuy waxee waale loo xam ne amul pour lan moom sax bu ko seeraane sax moo dul njëkk respect est-ce que comprendre nga ñun bu ñu waxee loo xam ne ñun li ñu wax amul moom bu ko seeraane sax day puus mais wóor na Seydina Muhammad am na lu mu ñu ñaan loo xam ne sax bëggul ñu koy wax. billaahi wallaahi taalaay ñaan ma ko ci barke maam Cheikh Ibrahima faal ci teraanga yu muy séq ak man te bëggul ma koy wax. nit nag ab sëriñ. bul nekk ak fi naan dañuy bàyyi ba dem àjjana mu manal ma. Mm. na jéem fii ci yow dara. ba noppi. Mm. bu la mënalee fii. bu demee bu la nee naa la mënal fee dina war nga koo gëm. waaye sëriñ bu la mënalul dara fii. naan la bu ñu demee naa la yëpp mënal fee loolu ay problème la de. ma la déggee mooy koy liggéeyal bu la dimbalewul ah ba ko. ah mais mais mais mais c'est sûr. waaw ah, waaw ku la tax ne dimbalewul ba ko. bu koo nekkal ci àdduna di liggéey na lay dimbali. waaw barke sëñ Bamba mi ngi ñuy dimbali. billaay barke borom Touba moo ko de. moo ko dégg man moo ko moo ko def de. barke sëriñ Bamba bu ma la mhm. moo ko liggéey mi ngi koy def. mais loolu li li ñuy jaaxal contrairement ak yeneen yi ñuy dégg loolu bu ngeen koy dégg nu mu leen di def souvent nga dégg ku génn waali li jàppale ma daf maa war a jàppale defaluma lii jàpp dimbalewul ay mbokkam te yéen ngeen di toog di ko gërëm. xam nga àdduna. yàlla daa bind te yamalewul. ñi danoo njool ñi gàtt. waali mm-hmm. famille bi mu bokk. Mm-hmm. ni mu mel yàllaa ko ko def nii mu mel. te man de giññaa ci mbaaxu yàlla ak yonent bi billaahi wal kitaabi man mi ko jege xam ko ku yàkkamtiwul man ngaa jël sa wërsëg ci moom barke alxuraanu karim ku yàkkamtiwul mën ngaa jël sa wërsëg ci moom ak ku mën a doon nag pee ci man laa ko njëkkee ku yàkkamtiwul barke Seydina Muhammad di nga jël sa wërsëg ci moom lii man maa la ko seedeel kon nag ah xalaati nag bokkul mm-hmm. euh, lekkul dara bàyyi kenn ah. barke noonu ci yàlla Muhammad lekkul dara bàyyi kenn. xam li may wax nii xam nga ko dégg nga ko. barki démb dégg nañ rakkam Mandiaye génn wax yi mu wax senegal yëpp dégg na ko. mais Mandiaye ak Waly. ñoo bokk ndey ak baay c'est la famille. waaw waaw waaw Ousmane Seck moo jur Mandiaye. Thione Seck jur Waly. waaw rak mën naa juum. rak mën naa juum. waaye Mandiaye moom. au fond mook Waly. bu ñu seqee xam na. bu ñu sequl teraanga xam na barke Alaaji Baara Mbàkke moo waale ñoo bokk ndey ak bu ñu seqee teraanga xam na bu ñu sequl teraanga xam na waali famille bi du pour ma njaay kese ku ci yàkkamtiwul waxuma la famille waali képp ku sa wërsëg nekk ci waali boo yàkkamtiwul barke sëñ Bamba da nga ci jot barke Alaaji Baara maa lox lii billaahi waxantuwuma ndax li muy joxe di ci dimbali jaamu yàlla yi yamale ko ci famille kese ak musicien kese waali ñëpp lay dimbali ñëpp lay jàppale xam nga les famille la lu ko war la ñii ay musicien am lañ da leen a war a fay ñu ñuy liggéey ak ñoom waaye yamul ci loolu mi ngi ñeneen. ah mais xam nga tey bu doon ñun rek de xam nga tey wax naa la ko léegi ñun ñëwuñu fii pour bëgg lu neex waale di ko loo xam ne déedéet. Mm. barke Seydina Muhammad ma nekkatuma ci loolu. musuma cee nekk daje woon nan bu yàgg nga ne ma. yàgg nañu. ñoo bokk dëkk. <laughs> li may wax bu dee dëgg xam nga bu dul. waaw waaw baala ko xon waaw waaw moom dañuy waxtaan benn interview. manu koy li may wax nii maa moom ñoo dëkk xam nga tey waaw bii laay jël nga seede waa léegi moom rek àdduna moom mii laay jël seede maa moom ñoo yarandoo màggandoo yow yokku naa wala yokk ma cant naa wala cantuma li ma daan romb muy teg ataaya rek ah di wër tey ah ak bii di wër ngénte yi kuy ngénte ma dem dugg fa waaw sol sa caay di wayaan ñu may may par mille waaw par deux mille par mille ah di xëcc ay micro waaw non déet non moom yow moom dama fekkee may xëcc ay micro bu nu engagé kee ma dem naan man maa koy tëgg tal naa ko wala tal naa ko ba léegi wala talatuma ko damaa amatu jot ga ku la tax gën koo wër te gën nee ko jërëjëf maa la ko ah maa ngi wa dëkk <laughs> noo ma xamee démb ak tey noo mais tamit ku la ku la tax a gën koo wërta gën mais ne ko jërëjëf. du benn na yokk nag mais euh, gis nga nit. yàlla xam jukkoy nit moo tax mu ni bu la nit defee lu baax bala nga maa gërëm gërëm ko xoolal yàlla ni mu foore ak ni mu màggee mais dafa def ñoo bind ba pare xam suñuy jukko xam ne ñun danoo bon barke alxuraanu karim xoolal yàlla ni mu màggee mu jël cër boobu joxe ko mm-hmm. xoolal yàlla mooy yàlla amatul leneen lu ciy teg yàlla rek ay yàlla fii kenn yàlla mooy yàlla ba pare mu xam jikkoy doomu aadama ak menokaanam ak jikkoom mhm. moo tax mu ni bu la nit defalee lu baax bala nga maa gërëm gërëm ko ak ak moom da ak ak ak daraja ji mu am nga xam ne mooy mooy lépp ah kon nag nit bu la defee lu baax gërëm ko aayul mhm. fii ñun nekkatuñu fii wax naa sànq sànq ba tey maa ngi koy wax. amatul luñ fiy nekk di bëgg lu neex waaleeg di ko tàggat naan ko waali lii ki waali loolu déedéet waali moo def li mu def ñu koy wax. barke Seydina Muhammad lii la billaay barke borom Touba Mbakke waali moo def lii ñu koy wax parce que nag neexul ba neexul sooy ànd ak nit sa télé bi sa patron. tey ngay ànd ak moom di liggéey mu lay fay sa salaire ba pare di séq ak yow ay talaa nga ci suuf boo ko waxul da ngaa goree di. loolu loolu loolu leer xam nga li mu lay fay sa métier la. waxuma ko kooku moom bu la neexee bul ko wax. li mu lay fay bu la neexee bul ko gërëm bu la neexee bul ko wax dara. sa métier la mais buy def leneen loo xam ne mënoon na koo bañ a mënoon na koo bañ a ñàkk def waaw doo ko wax leer na dégg naa la leer mais wax ko jërëjëf. dëgg la ah? loolu am. bu dee fay bi la moom. sa métier tax mu lay fay. mais yow mu jël fay ba teg ko nee di séq ak yow ay teraanga ci suuf fonk la bëgg la mais doo ko wax jërëjëf nag ah boo des góor nga ne ko jërëjëf lii rek moo tax ñu naan waale jërëjëf jërëjëf barke alxuraanu karim man de man de man chaque jour dama ko koy wax bu ma sant yàlla jullu ci rasulillahi gërëm sama ñaari waajur sant sama sëriñ bu baax bi nga xam ne mooy daj dëpp gi muy seexul xaddim seex ahmadu bamba waale laa gërëm nga ci droit man man xaali mbay mii de xaali ma woon démb de ak xaali mi tey jii visa bee nga def fa dix ans États-Unis cinq ans nga defal ma quatre ans Angleterre quatre ans may dugg barki Demba Ndiaye bi laay Cheikh Anta ak may seetaan dina ko seetaan dañoo dugg ci avion yi jaabante ba sonn maa ngi moom ñu bokk place mun ma booy man kon mën naa mënu ma lu mat a sant yàlla bari na Cheikh Anta ko wax bu dul dëgg na génnaat ni waxuma ko seex ni ma xaali man ne ko naa mu ni ma xoolal ñun ni ñuy waree ci avion yi biir États-Unis nii te nit yor na ay milliards bëgg a dugg fi te mënu fee dugg waaw boobu ñun du ñu sant yàlla Seex Anta ko wax. waaw léegi boo santu nag kañ ngay sant te nag yàlla boo koy sant nag. est-ce ah, que xam yàlla gën a bari tiitar ci àdduna. <laughs> day dooli yàlla boo ko santul. boo ko santul. yàlla gën a bari tiitar ci àdduna baat bu rëy laa wax nii. nu muy def xam nga yàlla nu mu gën a bari tiitar. yàlla dafa bari tiitar. yàlla dafa bëgg jaamam lim bind lépp doomu aadamaa ko ko ci gënal yàlla lim bind lépp ci aw lépp bind na ko mais doomu aadama la gën a fonk xoolal yàlla ñu xoolal yàlla ñun lim ñu fonkee bëgg na mu soo xëyee julli boo xëyee jaamu woo ma ma mere la mu boo ma jaamoo ba pare tamit te ñaanoo ma ma may la ma mere la yàlla baax yàlla gore nee na boo ko jaamoo ba nuppi te ñaanoo ko li nga soxla yàlla nee na ma ma nee na ma mere la xam nga ni kii moo yéwén. boo ko ñaanee it boo santee mu dolli. boo santee mu dolli. yàlla nag boo koy gërëm nag di ko sant kenn waxul nga am na ñoo xam ay milliardaires ah dañuy yor xaalis ay milliards dem tëj dugg ca néeg ba tëj frontière bi tëj bunt bi wàcce bi fay lampi naan. sant yàlla. <laughs> déedéet yàlla boo koy sant xam nga noo koy defee doo dugg ci néeg di furi ay rido mm. fay làmba naan yàlla maa ngi sant yàlla déedéet da nga koy jëfee ci mbedd mi ci jaamam yi di dawal ci oto yu baax yi di lekk lu neex wone ko di sol ci jas ñeer yi ku la laaj nga leen maa ngi sant yàlla sama borom buur bi. yàlla xam ne kii ak may sant waaye yori milliard dugg ci nu pantre tëj buntu ba fay lampe naan maa ngi sant yàlla. yow ko bon nga. ndax boobaa sax da leen di pookere woo. ndax ba ko malaaka ne doomu aadama yi boo leen wàccee ci suuf dañuy tuur deret rek. da leen kon xamu leen li ma nat sama jaam ñii waaw. boo léegi dama leen di tiitaroo. barke alxolal kon kon xam nga dégg nga la mu wax dama leen di tiitaroo. Hmm. moom laa wax léegi man la yàlla gën a fonk doomu aadama moom mi ñu waaw waaw laa bëgg a ñëw kon loolu ñun sant nañ yàlla bu baax. man de sant naa. le 19 le 19 man man am na lu ma jot a dégg de. ci ah, studio bi album bi le 19. Euh, loolu beneen affaire la. man xam nga lu ma koy ñaanal yàlla nii. li mu def ci album bi yàlla na ko yàlla delloo avant tout. waaw waale mu def ci album bii. yàlla na ko ko yàlla delloo ci barke Seydina Muhammad ndax man fit wu rëy wii mu yor nii. lim investir def ko ci lim ci investir nii ba barki démb. am na benn benn basis bu doon dugal. Mhm. bi mu koy fay toj naa studio bi base bi laa yoru man leen damay baas ñu fay ma. bi nga gisee li ko barke Cheikh Ahmadou Bamba laa la giñal. Hmm, ndeysaan maa ak moom ñoo toog nii. mu ni nii karaj karaj karaj karaj karaj jox ko kan. am na ku mu ko jox de ni ko su nga jox ko Baye Sall la ko jox. Baye Sall la ko jox ni ko su nga jox ko. abam la tudd ma ma ne ko mais yow ah, doo abam ñaara morceau solo def ñun ma benn ñun ma non morceau yi mu dugaloon yàgg na mais ak bii nii man ko yi mu dugaloon ak bii nii. moo tax li mu investir ci album bi ak noddug yàlla gii yalla na ko ko yàlla delloo ci barke Seydina Muhammad ba pare. waaw mais bëgg nañ. mais kontaan. ñu xaar ko mu ñëw mu ngi yegg si. ndeysaan loolu dina rëy. waaw torop. moom moom waali ci tudd xaali. non da nga naan ñëwati déedéet tudd xaali fan. non non ba. waaw yu bari waaw. du ma mos a waaw waaw am na guddi ñu bette woon fële. moom noonu lay def kër yi diis waaw. moom nee na xam nga li gën a li gën garaaw nga bëgg buur buur bëgg laa ko gën. daf maa bëgg. gisoo bu ñu voyagé ne fu mu taxaw ma ñëw taxaw fële Sinap <laughs> mu naaw mais man mais man yow mais man yow yow mais xaalis yow sama musicien nga. ma ne ko musicien bu booleeg bu la faa. est-ce xam nga ni waale bu ñu woon tëdd nii ñi ci ñi daw seetaan dama ciy bokk <laughs> du ma ko mis balaa yow mi dii nii du ma ko barke Cheikh Ahmadou Bamba laa lay giñal bu waale woon ne bëri maa leen di maa leen di roppi ñooy fanaanandoo tëddandoo ñooy fanaanandoo tëddandoo reerandoo añandoo. da ngay am yëg-yëg ci moom muy am yëg-yëg ci waaw xam nga tey àdduna yàggul euh, ñuy nañuy dimbalante te ñuy yéenante jàmm te ñuy rafetal xol yi mm-hmm. nañuy rafetal xol yi nit ku nekk ci àdduna du ñàkk am lu la metti waaye am na nit lu lay metti fooy toll. Mm-hmm. dafa am fooy wax ak foo dul wax muy man de message bi lancé wu ma ko kenn pour ñun ñëpp la du lu ma metti rek ma taxaw wax ko déedéet man ngaa wax ëllëg rëccu te tamit bu ma waree wax sax dafa am fu ma war a waxee sa jabar sax boo leen jotee da ngay jot sox sa soxna mais xanaa doo geen ci mbedd mi di ko di toog wax demal ba ci biir néeg bi ngeen waxtaan kon euh, lépp lu nekk famille Seckène ak lu bokk famille Waly mhm. muy papa yeek bàjjen yeeg mag yeeg rakk yi yal na leen yàlla jubóole ñu bokk ndey ak baay yàlla boole leen tàppe xol yi moom mu jiitu nag. yàlla na raw ba faaw. waaw boobu laay tëjee. <laughs> nga ni. Waly jiitu. waaw na raw ba faw ak képp kuy téemi koro ñaanalu ma Waly laaj ma ko ma ñaanal. sama bopp bu Waly rawee ma raw.